Moor Jaxate laa tudd dëkk Touba Mbouki. maanaam village bi Jaxate Mbouki. waaw ami 956 laa judd ba léegi ma nekk fi maanaam yor naa ko ci fi ne bii euh, troisième bii ma ko yore mooy sama troisième yor Mbouki fi mu nekk nii sama maam a ko yor ma di ko dox sama maam Faatu sama baay Yuusu yor ko. ma di ko dox mu faatu sama bàyyi sëriñ jaxate yor ko ma di ko dox fi mu nekk nii may def may dindi lépp ci sama kàddu la waa waaw tey jii euh, projet bi nga xam ne fàttali ñu ko indi fi muy benn centrale solaire boo xam ne dafay génne lu jëm ci wàllu courant jële ko ci jaww ji mm-hmm. yéen population gox bi ngeen ko accueillir. baax kontaan lañ ci def ndax it ñun. maanaam euh, yaakaar ji dañoo xam ne askan wi yëpp na ci bokk. kër bi mu ñëwee mu waxtaan ak ñoom ay Aymeré wax ko ma ne leen njariñ feeñ na ndax dina njariñ feeñ na mooy Aymeré noo bokk dund noo bokk dee te nag waxtaan na mag moom avant mooy ñëw ci yoon lii mu waxtaan ak ñun nag ñun ñett nan mobiliser wu ko jox ko sunu baat ànd ci ak moom te xam ne lii yàgg yàgg njariñ lay doon départ sax ñoom defoon na ni sax affaire bi jaaxal leen ndax yàggaay man leen nag yàkkamti yàq tey leen rek waaye bu nee ba 2016 dina leer yàlla dogal mi egsee ba 2016 fi ne moom kenn waxatu ko wax dëgg yàlla maasa allah maasa allah gàcce nga laa moom li ñu war la woon ak ñun ñëpp def nañu amalatuñu dara fi ñu war a jaar ñu jaar nañ fa matuwaay yëpp mat na suñu teraanga mat na ba teraangay tey bi waaw waaw lépp kay defal nañ ko ndàmpaay moom teel nañ daal suñu xol daal bokk na ci li ñu def tey ji parce que li ñu def tey jii deux millions lañ fi avancé dañ fi def dépense xam nga loolu dañ ñoo siggal nu woosu naw leen ko bokkali yëpp togg foo ree ñëpp lañ invité tey ah ku lii nag dara dut la doy parce que lii dafa rafet. lu ci wàllu ndàmpaay ah, xam nga site bi ci ay tool la nekk. waaw tool yooyu ñu yëkkati. waaw borom tool bu ci nekk ndax jot nga ndàmpaay ak ñaataar borom tool bu ci nekk nañu xayma sa tool ci hectare yi. la ca yellool muy sa wërsëg soit mu di dërëm soit mu di ñaar dërëm soit mu di ñetti dërëm jot nga ko ci kaw anam yi leer nañ sa tey bakkan nga xëy ni amul gundoxataal amul lenn facilement lañ la lijjanti ba nga jot la nga am ba ca banque yi dañ noo taxaw sax ba ca banque yi. xaalisu ndàmpaay bi yëpp ñaata la. mënu ma laa xaymaa nag xaalisu ndàmpaay parce que man moor lañ ma jox rek man wax dëgg yàlla ku ci jëli daal ba ngay dem ñoom ñoo jël seen oto ñoo la def à dem ba banque. taxawal seen oto nga dugg nga génn sa xaalis ñu sa oto dawal seen oto ba ñii ba wàcce la fi nga fi nga bëgg a wéeri sa sa xaalis. ñaata tool lañ jël ci projet bi ñaata tool lañ jël. maanaam un kilomètre lañ jël guddaay 800 mètres yaatuwaay mi defe naa ne 82 hectares la 81 lañ fi jël. lan ngeen ci xaar ci usine bi. ah loolu leen di xaar ci usine bi. lu ñuy xaar ci usine bi njeexital li daal ñun daal dañu seewal rek mu démarré. ba askan wi yëpp mën cee jëriñ xam naa li moom njariñ loo xamante ne moom du fay mukk moom li ma gis nii njariñ la rawati président Macky Sall ndax ci kaayam la dugg moom na ko ñaanal yàlla rek yàlla guddal fanam yàlla jàppale ko ba mu mën a am mboote yu yaatu yu mu mën a boote askan wi yàlla na njiglaayam daal Macky Sall daal vraiment moom ko ko bañ rek bañ jàmbaar jàmbaar dëgg dëgg dëgg liggéey liggéeykat dëgg dëgg dëgg dëgg la xarekat dëgg dëgg dëgg la moom daal li ma koy remercier mooy fii ci mbukki ci village mbukki bii suufu mbukki bii lu mu fi bëgg bu dikkante bu dee post poste gendarmerie bu dee post police bu dee poste sapeur pompier poste bu mu fi bëgg bu dikkee bu waxee fii laa ko bëgg jébbal naa ko sama loxo. léegi wax jafe-jafe bi lan la ci wàllu kaaraange wàllu xanaa xanaa jafe-jafe kaaraange mooy sàcc rek sàcc daal moom la jël na ndax leen sàcc mu dugg fi yëpp dana fi dugg ba léegi tey kenn du teg sa tànk si la ci kaw tali bi la koy demati ñëw chauffeur yi fi dëkk yëpp it bu soo yàlla bu li pare nii ñoom ñëpp dina mu ci penc bi di oto yëpp di gaare loolu moom wàllu santé loolu lépp wax nañ ko matale moom ak ndox ak courant lépp dina looloo sant nañ ko yàlla ndax maam yi baax yi ñoo ko fi ñaan te ñun nag fii li ma leen waxan sàng rek jàng jàngale mooy sunu métier ak dem tool. donc li ñu fendi mooy euh, un bi ñu fayee ba pare impense yi dajale population yi pour santante euh, benn leen ber def ko muy genre euh, berneel laa ko mën a tuddee. mais uniquement pour santante la di ñaan tamit pour projet bi ñuy door euh, doon projet boo xam ni yàlla def ko si taxaw muy un projet boo xam ne travail sur trente méga la boo xam ne bu paree euh, lu ñuy verser Sénégal la muy contribuer à l'indépendance énergétique bi nga xam ni souci la pour président donc euh, bu ñu jógee si li ñu jot a def population yi fay nañ leen seeni ax ak seeni wareef mooy environ deux cent cinquante millions de francs CFA léegi bu weesoo lool tamit euh, am na protocole d'accord boo xam ne ko am avec le maire pour taxaw leen dañ électrifier village bi dañ leen defal benn forage am na beaucoup d'autres mesures yoo xam tamit yoo xam ne dañ ko def yoo xam ne mesure d'accompagnement social la boo xam ne dañ ko def incha allahu rabi. Euh, projet bi incha allah euh, aménagement terrain beeg yenn préparation yi dans moins deux mois dañ ko commencé. et incha allah c'est projet boo xam ne peut-être maximum dans six mois euh, war na pare incha allah rabi. Monsieur le maire de la commune de Mérina Dakhar, Monsieur le chef de village de Mbouki, Monsieur le chef de village de Nguéguismor, imam ratib de Mboki autorités religieuses et coutumières Madame Dominique chef du projet conseillers municipaux chers invités chers amis Madame Dominique, je voudrais tout d'abord, au nom de l'État sénégalais, vous remercier. En effet, vous avez fait un très long voyage pour venir aujourd'hui jusqu'à dans cette belle et grande commune de Mérina Dakhar, mais plus exactement ici à Mbouki, village historique. Vous êtes venu, vous l'avez dit, un de vos plus proches collaborateurs, je veux nommer Monsieur Diagne de FH, n'a cessé de le répéter. Et c'est pour nous aujourd'hui une très grande joie de vous recevoir ici. En effet, vous êtes venu rencontrer cette belle population suite à ce qui était dit il y a des années de cela et qui vient d'être concrétisé ou bien qui est en voie de concrétisation. Il s'agit effectivement de la mise en place d'une centrale solaire qui, au finish, connaîtra sans nul doute un grand regain pour l'ensemble de la région de Thiès, mais du Sénégal, et ça sera un exemple pour l'Afrique. Je voudrais donc, au nom de l'État sénégalais, au nom de Monsieur le Président de la République, au nom de Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, vous dire merci, et très sincèrement, merci. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous au Sénégal. E yéen mbokk yi mbokk ngi gis ak mbokk mbukki bala may wax dara dina am ñoo xam ne ñii mën naa wax ne sumay kilifa lañu parce que ñoom ak suma kilifa ñoom ñooy toog te lii bu amee tey il faut mu wax leen kenn par kenn ñu jóg ba ngeen gis leen bay nañ seen liggéey lépp ñëw fii ñu rañee ci monsieur Banda mbay kii depuis ba projet bi commencé ba léegi mu ngi ci mooy départemental de l'urbanisme bu Tivaouane ñu ràññee ci monsieur Abdou Makole Touré mooy yore affaire agriculture ñu ràññee ci madame Célestine moo yore chef CADL ci département de Tivaouane yëpp war na nañoo ànd ak commandant Ndiaye bu Eaux et Forêts mais moom xam naa ni tëq-tëq moo ko jàpp mais au niveau local madame chef de serre waroon na fi teew wante dafa am benn idée bu ko jàpp à la dernière minute mu ñaan ma ma ne ko mën nga toog mais aussi l'agent des eaux et forêts monsieur Diarra moom aussi bokk waroon na bokk ci ñu teew fii wante ñoom ñëpp ku ci tardé Lamine Diouf agent ANCAR représentant mu ngi leen fii représenté et comme toujours mu ngi teew fii di àdd ak ñoom donc muy doon équipe boo xam ne kii en tout cas au nom de monsieur le préfet du département de Tivaouane je voudrais vous dire merci très sincèrement merci et guddi ak bëccëg ñu ngi ñëw di jàppale le conseil municipal de Mérina Dakhar di ma jàppale te ku ma jàppale jàppale nga le préfet du département ku jàppale préfet jàppale nga monsieur le gouverneur de la région lii bu amee fii tey ñoom ñoo tax donc chers membre de la, du comité technique, et je pourrais même dire ajouter comité scientifique, au nom de la population de la commune de Mérina Dakar, je voudrais vous adresser mes vifs remerciements et vraiment vous dire encore une fois merci. di sant bu baax aussi waa Eiffage et la voix la plus autorisée l'a dit muy celle du maire. Mais aussi, d'autres voix di dit toujours répété. Les voix émanant de chefs religieux et des chef de village. ñu ngi sant bu baax a baax a baax waa Eiffage. Eiffage ñëpp ay jàmbaar lañu. yaa fos amu de ay meeru da ngeen yéen waa mbukki deen ko ni ko dexal defal loo def baax na mu aman yan boo diis gann alhamdulilah yàlla boole ko ay gor sous préfet bu am fulla bu ma nee sous préfet wax naa préfet ak Eiffage ju ay gor xam ngeen ni liñ fi def kenn du leen ree Mor Jaxate Mor Jaxate siggi na tey ndax lu ne dégg nañ ko ci lu nekk yéen pare ngeen ñàkk ngeen seeni tool mais tey jii tool yaa ngi nii ñëpp a siggi kon boog bu suptant la ñii bis ni tey xam leen ni tool yi libéré nañ ko ci yéen la des dootul ci ñoom duñ ko bay duñ ci def dara pare nañ ci yéen ndax ñoom seen baat jox nañ ko ay meeru wax na ko préfet leer na nañ yéen a ci des de bu leen neexee bu solo ngeen tàmbali ñëw dindi garab yi ñu mel nii nag buleen leen yàlla boolee il faut ñu sant tey bisu sant la bisu mbég ay meeru nee na mi ngi sant njugo ñang ndax day mbokki waa mbokki ba nga koy ànd ba léegi waxtaan ceeg moo rañ moo euh, conseiller am Mornar mi alaaji Mornar gi di ko baax mu xelal ko njuga moom bu njugal loo tax bu ngeen gisee tey ñu jox njuga parole bi démb a tax kuy fàtte démb rek doo ko kon Bara Ndiaye yaa ak Mornar bu ngeen demee ne leen monsieur le maire nit ñi sant nañ ko gërëm nañ ñu ngi fekk aussi yeneen conseil yoo xam ne dañoo ànd ak maire jigéen ñi ñoom Ndoura Fall Codou Sène euh, Fatala Euh, bu ma euh, aale damay Cheikh Wañaan bu ma ngeen baal ma ñoom ñëpp dañoo ànd ak maire su suñu ko giliñ maanaam monsieur le maire dafa am loo xam ne moom dong moo ko am ci maire Sénégal mooy lan conseil municipal bi yëpp dañoo takkoo benn yoon ni ko loo doxal noonu la mosu dégg conseil am xuloo mosu leen faa dégg blocage dara parce que ñun ni ngeen amee yaakaar ci moom ba wóolu ko ñun noonu la ñu goree am yaakaar moom ba wóolu ko ba lu mu def rek day jàll ne lettre à la poste al ah, macha allah kon l' ensemble des conseils yi toog fii Malick Diamboxo fàttewuma kenn de yéen ñi ànd ak ay meeru fii di conseil <laughs> te bu leen neexal lu mu wax ngeen xëpp ci suuf ndax Sénégal da ngay gis koo xam li muy wax sax du dëgg mais da koy wax rek pour jaxase waaw kon boog ginnaaw yéen ñi nga xamante ni yéen ay moromi gorom di ay conseils minisipo yambalal ko mbir mi ay ay meeru nee na mi ngi leen sant mi ngi leen gërëm mi ngi leen ñaanal. benn conseiller bu dëkk Mérina musta dem ci rajo di wax lu dul noonu te bés bu nekk ngeen dégg rajo senegal ak télé yi ñuy wax budget ba mu ko bëggee da koo jàllale mi ngi koy exécuté lii nag am na yaakaar yaakaar ju bari espoir beaucoup d'espoir on a beaucoup d'espoir en vous te nag espoir boobu yaa yàlla du ko tas sauf ma madame Dominique on a beaucoup d'espoir parce que les populations la réalité, c'est des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a des problèmes pour la route. Vous en connaissez quelques-uns parce que vous passez par une piste sablonneuse. Il y a des problèmes pour l'eau. Ils ne feront jamais de santage. Ils ont donné tout leur parole au maire. Parce qu'ils ont confiance au maire, mais ils ont aussi espoir en vous. yàlla na yàlla dimbali ba sun yaakaar yooyu bañ a tas fii daal ay gor ñoo fi teg di sant yàlla di gërëm di ñaan projet bi àgg ci jàmm yéen ñi ci doon technicien yi yéen ñi fi kon taxaw yàlla nañ fekk sottile ba ba bu président de la république di ñëw fii ñu ni fu mu jógee dakaar fu mu jëm mbukki fanay mbukki commune Mérina bu boobaa bala moo ñëw sooba yàlla yoon wi tali lay doon ba fii lamp yi sooba yàlla mën naa def yëpp tàkk ndox mi lépp ñu teeru ko teral ko ànd ak yéen ngeen baal ma nag ma beral ñenn ay cant man ñëpp xam nañ ci lu laa doo kel laa yaroo mais bid bët laay liggéey lu ma nekk waa bët nekk ceeg man ñu ngi fees dell baas bi tey su ma doon milité yi sax bu ma génnee kel bët laay milité ndax na ki la bëgg rek amoo payam kon boobu maa ngi leen yóbbul cant ak ngërëm au niveau du au nom wax nag dafa jafe su fekkee juum naa na ngeen ma baal te xam ne matadi la su fekkee jum na nga xam ne yàlla foofu la ñu wasalaam